dali na jàmm ñoo ànd xëy yër yéen ñu xëyandoo yéen kaay gi di réew mi ko di jenqëy du ñu xibaar nan ñu lu jëm ci atteb Ousmane Sonko ak Adji Sarr ci kanamu chambre criminelle suba ci talaata ji la fukki fan ak juróom benn ci weeru mai journal bi nee na tey jii nag ci altine ji la Ousmane Sonko war a ñëw ci greffier bi daal di wax ak moom nag ko suba ci talaata ji ci atte bi fas yéene na ñëw journal bi nee na su dee nag Ousmane Sonko tey jii ñëwul ci greffier bi mën nañu ko teg loxo yéen gi nee na laam-laamee bi nga xam ne moom la ñuy laam-laamee ne Ousmane dañu ko bëgg teg loxo loolee tax na ñi nga xam ne ñooy ay far xarandoma jamono ji dañoo daal di taxaw tem rawatina sa diwaanu Ziguinchor guddi gi ca buntu kër Ousmane Sonko la ko gars yi di amale journal bi nee na veye dëgg la gars yi nekke nee nañu Ousmane Sonko kenn du ko laal yéen kaay gi nee na Aïda Mbodj di Malick Gakou di Cheikh Tidiane Dièye ñoom tim ni ki démb jóge nañu ci Ndakaaru dem si diwaanu Ziguinchor ngir na teel tànk Ousmane Sonko yéen kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Alioune Tine daal nay wax ne lu dul jàmm-jàmm ko gën te nag am na lenn loo xam ne war nañu ko moytu ci réew mi maanaam deret ji di tuuru ci réew mi loolee war nañu ko moytu jamono ji xam ne moo war a am ci réew mi ñu def pause daa di apaiser daa waxtaan ngir mën a dem ci ab dialogue ñi nga xam ne ñooy farandooy Macky Sall yi war nañoo def pause waaye tamit ñi nga xam ne ñooy farandooy Ousmane Sonko yi war nañoo def pause ndax réew mi ñoo ko bokk te dañu ko war a waxtaane te am na loo xam ne war nañu ko moytu kàddu yu Aliou Tine la ma ngi ci Vox Populi yéenekaay gi di enquête xëy duñu xibaar naan ñu atteb Ousmane Sonko ak Adji Sarr suba ci talaata ji la waaye nag soo moytuwulee tension dina am ma la tension bi violence bi fin na ji jamono ji ma ngi xeeñ ci réew mi journal bi xëy sampabla laaj nee na Ousmane Sonko ndax dina wuy ci yoon yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na en tout cas 48 heures yi nga xam ne moom la ñu dëgmale boo muy tuulee dina tàng jër ci réew mi maanaam tey jii ci altine ci xam ne Ousmane Sonko dafa war a dem ca kanamu greffier ba jox ko ay garantie na suba ci talaata ji dinaa ñëw teew te Ousmane Sonko bu deful loolu mën nañu ko jàpp loolee moo tax journal bi li mu jàpp mooy tey jii ci altine ji ak suba ci talaata ji boo muy tuulee réew mi nar naa yëngu yéenekaay gi di Le Quotidien yor yor xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy patriotes yi maanaam farandoy Ousmane Sonko yi ñoom jamono ji dañoo taxaw tem ngir nag protester ngir aar ki nga xam ne mooy seen leader di Ousmane Sonko ak projet bii nga xam ne teg na ko ngir réew mi yéenekaay gi di bés bi xëy fësal ne si gi coora sous tension yéenekaay gi de la peuple ñi nga xam ne ñooy waa APR ñoom nag jamono ji li ñuy sàkku ci état bu Sénégal mu jël ay matukaayam jël ay responsabilité ma ngir nag aar askanu Sénégal waaye tamit aar seen moomeel yéenekaay gi de la Tribune ni mu gisee mbir mi procès Adji Sarr Sonko ab complot ak boo xam ne bu vide la un maanaam suba ci talaata ji lenn lu nekk mën naa am ci réew mi journal bi ne na ñoo ngi nekk nag ci diggante dàq bi ak teg loxo Ousmane Sonko te nag bu boobaa maanaam ay yëngu-yëngu mën naa am rawatina sa diwaanu Ziguinchor waaye tamit sa diwaanu Bignona journal bii de la point ñu xëy fekk mu Mamadou Ndiaye mi nga xam ne moo jiite ndaw ñi bokk benn bokk yaakaar ci département bu Bambey daan nay wax ne dara du yëngu dara du xew ci réew mi te état bu Sénégal dina jël ay matukaayam Ousmane Sonko ak taxawaay bii nga xam ne amee na ko loole nag firndeel na ne moom ab rebel dëggantaan la kàddu yu Mamadou Ndiaye la nee na njiitu réew mi di président Macky Sall lu mu man def na ko ngir nag jàmm am ci Casamance waaye nag jamono ji ñi nga xam ne ñooy rebelle yi commencé waat nañ seen manina ngir nag défendre seen candidat bi nga xam ne dafa signé ak ñoom ab accord ngir nag jox leen indépendance bis bu gàñee ci réew tuuti na loola ngir nag andi ak pëccëxoo ci réew mi kàddu yu Mamadou Ndiaye la ma ngi ci le point nee na état bu Sénégal du mos a deltu ginnaaw du reculer te Ousmane Sonko dina wujji fukki fan ak juróom benn ko ak mu général Moussa Fall mi nga xam ne maîtriser na lool bu Casamance jamono ji ma nga fay def ab liggéey boo xam ne war nañu ko brawooy ma ngi ci journal bi de la point yéen kaay di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naa ñu ay négociation am na diggante état bu ak ñi nga xam ne ñooy way fipp yi maanaam waa MFDC accord de paix lu ëpp ñaari téeméer ak juróom fukkuy combattant yoo xam ne wéer nañu ngàndaay yi ca diwaanu jàkkaay yéen ne man li may conseil Ousmane Sonko mooy mu dem wuy ji yoon ndax yàgg ci réew mi ñu dem wuy ji naam nag Ousmane Sonko bu amee ay xiini mii na ci wàllum justice na dem rek wuy ji ndax am na avocat yoo xam ne maanaam yu xarañ lañ bu dee nag Ousmane Sonko nee na ñu ko complot jamono ji li nga xam ne moo ci war mu dem ci kanamu yoon daal di défendre te nag li nga xam ne gis naa ko ci réew mi soo moytuwulee ay confrontation ay jàppante dina am moom maître Amadou Ali Kane daan nay wax ne li nga xam ne moo amoon ca diwaanu ko d'Ivoire ci atum 2010 dafa mel ni ci tànk yooyu ci la Sénégal dox di w yéen kay gi de la quotidien yor yor ñu xëy fekk fa maître Doudou Ndoye nee na mbiri bi ñu ko xoolee xoor ko biir ak biti wax dëgg Macky Sall wërta sampandëndama maanaam Macky Sall wërta am troisième candidature kàddu yu maître Doudou Ndoye la yéen kaay gi de la ñu koy fekk fa am sud société bi nee na le pays va mal li nga xam ne gis na ko jamono ji maanaam tiis na doy na waar lool te raglu na moom am sud société bi yéen kaay gi di Direct News xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñoo bokk nekk ci diwaanu Paris la France ñoom nag nee nañu Macky Sall mooy seen candidat ci élection présidentielle 2024 journal bi nee na investir nañ ko ci rassemblement bu mag boo xam ne amuloon nañu ko samedi ji nga xam ne moom la ñu génn yéene kaay gi nee na ca diwaanu Paris gën gaa gàtt ca ndaje moomee lu ëpp ñeenti junni ci ay nit teewee nañu ko ñoom nag nee nañu Macky Sall jamono ji daan nay remplir mbooleem li nga xam ne ay condition la ngir nag mën a wéyal liggéey bi nga xam ne maanaam door na ko te nag Macky Sall joxaat ko réew mi mooy jàmmi mi mooy dali mi ñi nga xam ne ñooy waa secrétariat exécutif national bu APR ak Macky Sall ci boppam daan baax a waa ñi nga xam ne ñoo nekk ca France te amuloon fa am mobilisation libération yéen kay gi de Le Quotidien yor yor a xëy duñu xibaar naan ñu bu am na ñenn ñoo xam ne ànduñu ci lu jëm ci troisième candidature bu Macky Sall mooy sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew ci diaspora bi yéen kay gi de Le Quotidien yor yor a nee na waa diaspora bi sénégalais yi maanaam amal ay mobilisation yoo xam ne maanaam yu jéggi dayo la ndax sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu France amuloon nañu ay mobilisation ay rassemblement ay doxi yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Allemagne di leen di feelu yi nekk ci diwaanu Belgique ñoom tam wane nañu seen ñàkk ànd ci Macky Sall yéene kaay gi nee na yokku ci Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Suisse ak ci diwaanu Suède ca Gambie ca ak ca Cap Vert journal bi nee na ñi nga xam ne ay sénégalais lañu nekk ci diaspora bi ñoom nag ñu na ñu ànduñu benn yoon ci troisième candidature Macky Sall waaye nag yàq nañu ko musiba ak mbelengaan nee nañu ko bul laal Ousmane Sonko te nag sénégalais yi maanaam woote nañu résistance yéene kaay gi de la point xëy ci discours déclaration bi nga xam ne ministre Matar Ba chef de cabinet président Macky Sall def na ko ci màggalug Serigne Abdoulaye Mbacke gi ngir nag woote jàmm moom Matar Ba nee na Sénégal réewum jàmm la te nag loolee war na tax mbooleem ñi nga xam ne ay force vive de la nation la ñu liggéey ngir jàmm ji am ci Sénégal maanaam bañ a yàqu maanaam jàmmi réew mi ak stabilité réew mi loolee kenn ku nekk war na si liggéey ngir nag mu daal di sax ci réew mi loolee tax na moom ministre Matar Ba sàkku nay ñaan ci Serigne Sidi Abdourahmane Mbacké daan nay wax ne président Macky Sall ku ko xam xam na nitu jàmm la journal bii la point nee na ñi nga xam ne ñoo ko gunge woon mooy Galoba Abdourahmane Mbacké Gaïndé gi di Vox Populi xëy duñu xibaar jaw ma ngay wéy di desu xam bi na ndax askan wi nga xam ne ñooy yeewoo ngor maanaam nguur dëbu ñoom nag jamono ji justice la ñuy sàkkoo nee nañu tamit seen six mille mètres carrés bu ñu ci lal dara nañu leen ko jox jamono ji mënuñoo xajoo ak gendarmerie yéeni kaay gi di wal fajiri xëy duñu xibaar nañu tey ji la fanweeri at ginnaaw bi ñu assassiné maître Babacar Sèye yéeni kaay gi di sunu làmb ci xën mu njëkk ma am seen nee na jamono ji pare na ngir bëri ak Sa pare na ngir bëri ak guy gi